Cheikh Ibra Fati ak Serigne Touba diggante boobu nga xam ne ba wëllëre dalee am ci àddina ba tey benn wëllëre ak benn ànd bu mas a jege loolu mësta am ba ko suñu borom ne sana suddu abudaka bi axiik te loolu waxoon nañ ko Seydina Moussa wante Serigne Ibra Fati ak Serigne Touba seen diggante benn diggante mu si mu si mel noonu royukaay la dafa gëm sëriñ Touba bëgg ko ragal ko doyloo ko mosu ko diingat mos ko wer werante bi nga xamee ni Serigne bi yëg na tubaab yi ñu ngi koy woo te fekk booba ñiy rambaaj ñoo fexe ba convocation yi ñu yónni sëriñ bi ñu denc bi ko sëriñ bi xel na see mu ne ko demal laaji ba xam loolu nu mu dem am ci bokk yi ak taalibe yi ñu ko xelal moom maam Thierno ne ko su nga jëm day ndar la dañoo doon ñi fi àddina fexe woon ba am col gu rafet boo xam ne dana dëppoon ñoom day baaxoon na ndeke ndekete sëriñ daan koy yëg ci mu toog bi mu lijjantee ne moom maam na bëggut dara waaye fexe na ba àbb bi ko sëriñ bi yëgee mu woo ko mu ñëw mu ne ko yëg naa li ngay fexe waaye boo demee sa col ji nga daan nekkee man muy ay sagar boo demee sol ko ci laa def tàggat gi may tàggat tubaab te ni ko Serigne Touba waxee woon ba mu àggee moom jiimu ko def dara dafa jawale rek kër gouverneur ci ëccëg bi mu àggee mu taxaw ci buntu bi rekk gouverneur une heure jot na muy signé ay courrier volontaire am dafa féete buntu bi ñu seen garde bi di waxante ak maam Thierno mu xëccoo mu woo garde bi ñu ne ko kooku kuñu mu ne ko kooku de dafa wax ne mooy rakki Serigne Touba. ginnaaw nga xam ne nag ñoom booba mbirum Serigne bi réy na ci ñoom mu daal di ko ne wutal ko fu mu nekk bu ma gontee woo bi ñu ko wooyee ba mu yàqkat yi dikk jéem def lu ne waaye gouverneur def leen ki ak ak sagaram yi mu sol lu mu wax deug ndax gisuma lu muy ragale ci ci wala lu muy dabooti ci àddina kon lu mu wax deug nga gis li serigne bi newon sagar yi ci la def tag bu sol won ba jek rek mu wax duñ ko gëm mu leneen te wax muy soxna fatima isa ak serigne Touba man de lima xam ci histoire Serigne Touba moy ki gëna gëm Serigne Touba ci adina moy soxna Fatou Issa Diop na bëgg serigne bi na japp serigne bi nonu lepp ci ngëm ji lay wax serigne bi dafa am juroomi at yo xamne kenn xamul ci mom dara touba di bind ben lettre def ci ne serigne bi nekkatul ci adina ñu ni ko mamor jaar fekk booba maam na mu ngi ci Daaru Manaan fi ko Serigne Touba bàyyi euh, sëñ Mor Diarra di bàggante diggante Mbakke ak Daaru Manaan fekk soxna Fatou Issa Maga bi kuyti kuyti yi bare mu ñëw ne maam Thierno man nga damaa gis fan yi yëpp ngeen di gisee que bàyyi te man xaw bu ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waaye sa xarit ba sa doom ja moom lañ wax ne moo fi nekkati te it neexut a weddi ndax monsieur Souta yóbbu kenn ñoom tubaab yi mu dellu siwaat te it dund bu ne dafa am fu mu yem kon warees naa mën a gëm dooda loola waaye ba mu des soxna Fatou ñu bari ci kilifa yi ngeen di dégg jëmoon nañu xibaar ba bay tàmbalee sàkk pexe ñu teg nañ seen jë seeni moroom wàññi leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne maam Thierno fii ne gëm nga xibaar bi. mu ne ko waaw mu ne ko bett na ma de sa mag jooju nga xam ne si buru si ko daa dal daf koo dal bis te si buru soosu fi la Serigne Touba taalif woon matlabu chifa yi bi muy def matlabu chifa yi nit a ne fi wetam muy wax kooku di bind waaye booba sëriñ bi tawat ji nekk na ba mënatut a yor xalima ak daal moo tax mu naan wa ashtaki ilayhima min addarar qad massani xatta arani muxtadar booba nee na mu ngi ci waaju ginnaaw bi nee na mu wax ma ni ma toggal ma ko gerte soxna Fatim Se mooy wax bi mu ko defaralee sëriñ bi sëriñ bi bi mu ci jëfandikoo amuk tal amuk dal tane nee na mu ne ma waxal loo bëgg ma defal la ko ma ne ko man bàmmeel laa ragal mu ne ma xanaa su ma la ci dugalalee sama bopp danga ci ñeme mu ne ko waaw mu ne ko waaw diwe bu ma di xoolee te moom lu wax def ko ñu naan leen génn na addina ngeen di ko gëm waxuñu dëgg mu ne ko te boo ko sàkkoo gis ci guddi péeg yi dem ko gis keroog ñu fekk jotaay ba wax nañu ne dégg nañu maam Thierno bu wax ak sëriñ bi loolay sëriñ Tuubaa nekk Gabon ba ñibbi si 1902 am daaru man naan juróom benn weer ñu exilé ko moo Mauritanie ba 1907 mu soog a dem Thiéyène sëriñ bi soog a woo lu soxna Fatou Issa ba mu déggee woote bi def ne damay faatu ji rek la mu la bëgg a def bi mu dikkee yàlla dogal la xew-xew sëriñ bi moo jógal boppam topp ko xam nga ni ne dugal nañu ko ci biir sëriñ bi dane mënu ñëpp dànd moo soxna si moo soxna si mu ne leen su ngeen séenee ma yëkkati sama loxo ngeen dellu si waat mu def la mu waxoon loolu sa bopp kon nag xibaar bi ñëpp gëm ka ko jëli moo gën a gëm sëñ Tuba foofu laa ko loolu mooy maam Thierno Birahim sunu maam sunu royukaay ak soxna su tedd soosu di soxna Faati Isa mu ñëw ci Serigne Touba Serigne Touba nag buñ ciy waxtaan duñ waxtaan ci lislaam ñoo ngi waxtaan ci li wuutale Serigne Touba ak ñu fiy dégg waaye la yemale Serigne Touba ñëpp loola duñ ca wax ndax innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qanitina والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سرين Touba nee na lépp lu تما ديكو ديفن دي جيجين من ko defal يوم اللي man du ma yem foofa yooyu foofee nag la sëñ Tuubaa tàggoo ak nit ñi ñëw ci fi nga xam ne rijaalum loo xam ne bu ko sunu borom di wax danaan rijaalum foofu la sëñ Tuubaa ñi laa tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه المجاهدون في سبيل الله مجاهدات في سبيل الله كن دب دفع لجين من غني من فوف فلسطين تبا تامبلي دي لجيل يالا murid yi itam tànn bu yàlla lañ ci biir lislaam ndax jiw ñu ngi koy tànne ci gerte gi ñu xolli waaye buuse dafaa ne xar ne fa lu dul sax ne fa lépp ne fa waaye jiw nag jiw yàlla ci lislaam ñooy ñooy ñooy murid yi moo tax mu ne man yartadid minkum an diinihi fa sawfa yati llahu bi qawmin yuxibuhum wa yuxibuuna azillatin ala almuminina aizzatin ala alkafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة اللائم نول نغلقي ما يموي ذلك فضل الله يؤته من يشاء نول ما يتالبين بني يجيب بدد يالا يالا بدل يالا جرى اللين يونة نول نغلق قد يالا تا تيب بنت يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة اللائم نول نغلقي ما يموي ذلك فضل الله يؤته من يشاء نول ما يتالبين بني يجيب بدد يالا يالا بدل yàlla jaral leen lu ne lu ne ñu di ko def te yàlla tax tey duñ ko ragal coow duñ ko ragal mbam ndax murid du ragal coow coow koy yëgg fu coow amee yoon yokk kon loolu mooy Serigne Touba loolu mooy taalibe yi ñi nga xam ne nag dañu leen di tudd di tudd Serigne Touba dañoo war di waxtu wu nekk di ko delloo njukkal am na loo xam ne day xel war na cee dem nga am lépp ba ku ko mën a am day ñu ñaan la ko yalwaan la ko nga sarax ko ci nga sarax nit mu duy ci ay bàttoom won la gannaaw nga gis muy fees nga fàkk ne yaa ko ko sarax toppati di ko yalwaanaat ci la ko sarax woon war nañ koo wattandiku wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu